joxe exemple ajara du ñu fi jug mais dama la ne la c'est que ñoom xeetu politique bi ñuy politique fi politique bi yóbbu ñoom fi ñu yóbbu politique ajara moo ñaaw dama dama jàppoon nii li fi jóge loolu lu fi amoon la après jóge na fi quoi ndekete ak ñoom lay gën a pire te dafa ñaaw tey bi ñu defee loolu noonu yuuxu foofu di yuuxu ma wax leen ko bi ma leen wooye wax leen ko dañoo bañ commencé clash di wax lu nekk may leen Ousmane Sonko du yàlla du yonante bi du Serigne Touba du Serap Fall xam lan la homme politique kese la c'est un politicien. mais homme politique boo xamante ni jamono ji yàlla may na ko ni moom moo fi ne. ajara waaw. xam nga xale yi topp ko tamit. ajara ku ne nekkoon na fi. Hmm. moo fi ne du ay waxi dof la. ay diw moo fi ne ba ci lan lu tax Sénégal ñu am problème yooyu. Hmm. moo fi ne d'accord mais du ko tey nekk sëñ bi. mais est-ce que yow yaa jàpp ni moom nekkul nit ñoom xale yi jàpp nañ ni kii nekk na nit ba tax ñu ànd ak moom. waaw ah, moom laa dama la sama xalaat. xam nga sama constat laa def ajara. allez mais dama ne la man pour man moo fi ne gi ñuy wax noonu xam nga hmm. ay affaire du noo tey am na yoo xam ne boo koy xeex sax wala boo koy kii boo koy wax sax dafa mel da ngay sénégalais yëpp ñu ngi ànd ak diw sénégalais nekkul ci lu dul dëgg day tax nga nekk si dëgg lu dul dëgg yow man la ñuy xool topp ko dëgg la ñuy wax te loolu lañ gëm suñu dëgg lañ gëm léegi nag peut-être nga naan mën nañ nag juum nga taxaw ni kii moom dafa jàpp ne mooy monopole de la vérité kërëb kërëb mais non mën nañ bañ a bokk gis-gis mais dañoo gis ni doxalin bi baaxul doxalin bi baaxul tey buñ ñoom bu ñu defee loolu hmm. keroog maa ngi koy wax Mélenchon bi mu ñëwee fii nii université. taxaw si si si si kii bi amphi bi lu mu wax dafa ni moom Mélenchon moom moo xeex ba góor jigéen góor góor góor jigéen ñi mën a sëy moom bokk na si li dugal loolu ci proposition la boobu ci parlement français bi ba France tey góor jigéen légal fa bi mu ko waxee. ñi fa nekkoon dañu doon yuuxu di tàccu di yuuxu te ay étudiants lañ ay sénégalais lañ c'est des jeunes sénégalais te xam nga Sénégal ñu radicalé ci xew góor jigéen parce que dégluwuñ ko au fait parce que fa nekkee woon nekku wuñ ko dégg nañ li muy déglu wuñ ko Ah. loolu moo leen dal ci discours ci discours même les discours de Sonko duñ ko déglu parce que ñoom en réalité ñoom ay fans club lañ quoi. ay nawetaan ay fans club Sonko lañ. ay nawet na affaire nawetaan la ñuy def <laughs> mais Mélenchon bi mu waxee loolu ñu yuuxu noonu ñu yuuxu. image yooyu noonu bul xam lan la mën a yàqal Sénégal ci ñun ñu doon xeex. xeex góor jigéen ñun. nga xam ne loolu góor jigéen ñi mën nañ ko jël ONG homosexuels yi fi nekk association homosexuels yi jël ko dem yóbbu ko fu nekk ci àdduna bi di ci gagné xaalis bu bari ci turu Sénégal mën fi dugg en catimini ndànk-ndànk di fa dugal xaalis di yàq système di yàq sénégalais d'accord loolu noonu image boobu dafa garaaw ci ay nit yoo xam ay magum jëm lañ ñun ñun ba ñuy xeex dañoo xeex pour Sénégal boo xamante ni doomu Sénégal bu nekk kenn du la nax sa njàng école sori ak mu ñàkk bañ a sori nga éveillé yow nga xam ni ñu mën la expliquer ngay déglu xàmmee kan moo équidistant kan mooy activiste kan mooy lanceur d'alerte kan mooy partisan kan moo far kan moo féete gauche kan moo féete droite kan moo taxaw nekk ci digg bi di dimbali Sénégal ñu loolu mooy suñu rôle ajara mais bu fekkee ni loolu échappé nañu ba mënuñu dimbali nit ba ñëpp mouvance bi topp leen ndiiraanu Sonko mania bi topp leen phénomène Sonko bi topp leen ba kenn ku nekk yow li ngay toppee nit ki doo ci réfléchir mais y problème parce que ñun suñu liggéey mooy xeex pour benn sénégalais kenn dootu ko naxati. d' accord léegi ci ci wàllum indépendance justice boobu noonu. nga mhm. doon wax Karim. Mhm. Euh, tey kon mën nañu gis ni euh, justice bi moom ci indépendance boobu mi ngi ci ndax ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany ba ñu ko jàppee ba jugé ko daan nañ ko bàyyiwaat pour mu dem defi campagne ci mhm. un mois de sursis. lañ ko daal di condamné ak euh, cent mille francs amende. amende voilà kon mën nañu jàpp ni. ñu ngi ci tànk yooyu. quand il devait même pas waruñu woon sax euh, il devait même pas l'arrêter mais nga jàpp tamit moom doxale na yoon. est-ce que mais mais Ajara Ajara lan mooy yoon xam nga man dama wax ma ni. Hmm. xam nga def ne euh, su nga defa ni bugaan dañ ne ko coppet xam nga di ñaawalaate ne dañ ne ko coppet jël yóbbu te dara yënguwul man dañ ne ma coppet dëkk bi yëngu c'est-à-dire basis yooyu noonu politique boo xamante ni loolu dañ ko dépassé woon mais lu tax mu bugaan xam nga moom bi ñu ne ko coppet moom jóge na Casamance di ñëw fii ñu ne ko coppet yóbbu ko këram bugaan mën nañ ko gendarmerie xoolal Bougane yow sécurité gendarmerie gendarmerie organisation bu mu organisé. Bougane Gueye Dany matu leen nga wax ni ko pour ñuy jëm Bougane coppet ni yóbbu ko këram téye ko teg ko foofu mu toog réglé loolu du dara si ñoom. ah noonu la ñu def Sonko. loolu dafa ñu ko woon Sonko fii. mu ne day day jógee xam fan di ñëw gars yi jël ko yóbbu ko këram. te dañoo ne ko coppet yóbbu këram. dafa ñu ko lool <laughs> c'est-à-dire mënu bëgg wax ne la gendarmerie du lu ndaw. d'accord. te bu ñu demee ba lu xam nga gendarmerie fait pas gendarmerie corps la boo xam ne ci armée la bokk gendarmerie du ay caaxaan mooy police su bi. Mm. gendarmerie bu ñu ba taxaw di défendre taxaw ba di di seddal ne deful nanguwuñu li ko li procureur doon jëm a chargé. mais information yi foo ko jëlee. mais mais xanaa mais naa nekkuñ ci dëkk bi ñun. nekku ñu dëgg bi yaa ngi suivre information yi. ñu ngi ci dëkk bi information ba kan moo ko wax. mais procès bi bugaan li wax xaa dëgg sotti. bugaan moom moo ko wax. mais procès bi ñu fa nekkoon ñoo xam ñu ngi fa woon journaliste yaa ngi fa woon ñoo génn nii waaw wax ni nii gendarmerie ñoom ñoo wax nii si hmm. nga xam ñoo doon jot ordre yi ñoom ñoo taxaw ñoo taxaw foofu noonu ci procès bi te waa ji wax dafa leer donc maintenant man suñu problème xam la moo ñun dañoo bëgg rek pour ñu xam ni lañ doon xeex démb d'accord fekk jugu fi ñun du ñu changé. te ak ku mu mën a doon sax nit mënul am dayoo bu toll ñu war a mën a nangu la ñu doon xeex démb ñu nangul la ko tey déedéet. d'accord est-ce que comprendre nga expliqué. léegi nag lii xew ci jafe-jafe yëpp ak problème yëpp mooy sénégalais bu ñu yàgg a baratine di ko nax kenn ki xamul dara lu xew ñëw topp nuance rek ndiraan kenn ki moom lu mu dundee lay ut mu am ñaar kii yeetal sénégalais yi di leen nelawloo. kan moo nekk di leen nelaw. pour yow mooy koo xam ne bëggul ñu éveiller conscience yi mooy maanaam comme par exemple ne Karim xam ni euh, Karim ñu ne Karim ñu ne non comme ça bi ñoom dañuy gis ne rek kii wax exemple man moo hmm. fi nekk di justifier ay dafa iñaan iñaanoo ku iñaan sa bopp nga koy def mais incha allah salaam dafa ni mu ne nit mu ne jullit mu ne sa jullit yow du mat mukk tànk li ma yére sa bopp yow yéenewoo ko sa boroomu jullit te ñun ñu taxaw ne diine la ñuy xeexal ñu ne dañuy iñaan cest à yëpp ay wax la yoo xamante ni c'est juste benn xeetu communication ak sorte de dénigrement ak ay doxalin la yoo xam ni pour juste au fait en réalité amuñu argument yuy dindi li ngay wax yow d' accord moo tax ñu indi euh, loolu nañu xam lan moo soppeeku comme li nga wax sànq xam sànq yaa ngi koy expliqué nga ni mm-hmm. dafa am loo xamante ne moom nga gisoon ci waa Pastef mm-hmm. ba doon ànd ak ñoom ci xeex bi tey ñu jël pouvoir bi am neneen nu ñu nu ñu nu ñu doxale est ce que mën nga ma ñëwoon rek ci ñi nga xamante noonu la ñuy doxale tey ba tax nga taxaw di leen ŋàññi tout le temps ajara mooy patriote ŋàññu ma kenn waaw man ay fee laa lay wax patriotisme laa lay wax mm-hmm. dañ ma woo ci patriotisme dañ ma fekk ma nekk ci patriotisme ñu fekk si ma ci sax laay wax engagement don soi bi ñu wax dëggu dëggal jub jubal man loolu laa loolu ci loolu la ñu mos woo fekk ma si man ma nekk si nekkoon ci depuis des années boobu xaw ma leen ma dem ba ci biir gis loo xamante ni man lii xaw ma ko ajara man maanaam man man kuy tudd aya bu nit sax topp ajara nii jigéen bi def naa ko nii wala kii def naa ko ne kii bañ ko defee lii jëkkëru kii jëkkëru kee ndax politique man gëw ma loolu ajara ñàkk gëm loolu moo tax ñun ñu tànn ne diine la ñuy xeexal mais naka mais yow xool nga Adjara xool nga instant yi nii politique bi nu mu mel est-ce que xool ngeen géew politique bi nu mu mel. ci réseaux sociaux yi. mais mais am réseaux sociaux yi la lay wan réseaux sociaux moom da wax li fi ne xam nga sax nañ ko segg am mais réseaux sociaux da lay wan li fi ne. Mm. léegi dafa ne est que xool est-ce que sénégalais ñi ngi xool li ñu doon dund ñun mille ah ak Macky Sall ak li ñuy dundu nii instant yi élection nii est que ñii ñu ngi koy bàyyi xel. ci élection yi noonu la ñuy ñëw. muy élection législative yi ak campagne yi nga mhm. xamante ni mooy suñu deuxième point bi Karim mhm. euh, muy élection yi euh, ni mu tàmbalee door rek euh, ñu daal di gis ay violence ay yoo xamante ni am na ci ay jàmm